dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak Tarba Mbaye di ab waykat boo xam ne ràññee nañu ko loola jamono ji nag wax na li nga xam ne mooy ay projet ma wax na ni nga xam ne moom la doore musique bi daat nay wax ne lu jafe woon lool la ndax ñi nga xam ne ñooy ay waajurama musu ñoo nangu mu daal di way musique wax nañu ko fan nga dooree li nga xam ne mooy musique bi nee na ci simbu la ko dooree loolee moo tax sax am njàngam yàqu ñu ne ko fan nga tolloon nee na troisième la tolloona moom Tarba Mbaye wax na jafe-jafe nga xam ne coronavirus andil na leen ko ñoom ñi xam ne ñooy way daan nay wax tamit projet yi nga xam ne daan na koy sumb wax na fi mu bëgg yegg ci lu jëm ci wàllum way gi yéen kaay gi de la Soleil xëy na ci woppi coronavirus ak plan bi nga xam ne état bu Sénégal daan na koy teg lu jege ñeenti million ci ay sénégalais yoo xam ne fas yéene nañ leen a ci atum 2021 bi yéen kaay gi di Vox Populi ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi maanaam wàllum santé ñooñee la ñu njëkk a ciblé lu toll ci 20 600 si ñoom danañu leen ñàkk bu dee nag ñi nga xam ne ay mag lañ lu toll ci 447 000 su dee nag ñi nga xamante ni 19 ans jàpp 40 ans lu toll ci 2 millions 445 mille ci moo tax waa France ñoom nee nañu ni suba ci dimanche ji seen frontières yi danañu ko daal di tëcc docteur Fatou Mbaye Sylla ñu xëy fekk ko ci yéene gi nee jamono ji soo muy tuulee mooy am ci Sénégal ci lu jëm ci woppi coronavirus ndax lay raam sa ñag ba la jëm bu fa amee kër du baax dina toll foo xam ne dootuñu ko mën a ndax lu toll ci téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay ay lal la ñu am ci ñi nga xam ne ñooy cas grave yi maanaam ñu nekk réanimation yéen kaay gii di Vox Populi di ñu xamal laan ñu Idrissa Seck mi nga xam ne moo jiite conseil économique social environnemental def na déclaration patrimoine ni démb ca OFNAC yéen kaay gi xëy na ci génnuk àdduna Mourchid Iyane Thiam mi nga xam ne moo jiite woon commission bi doon saytu wàllum weer wi yéen kaay gi nee na commission croissant lunaire daat nañuy bàyyoo jamono ji moo doon séentu weer wi bi nga xam ne moom màbboon usine 3MD énergie foofee nag limum ñi nga xam ne ñoo fa faatu yokku na jamono ji toll nañ ci juróoma gendarmerie ubbi nañu ci ab enquête te soo moytuwulee dina bëri ñoo xam ne danañu leen teg loxo journal bi de Les Échos xëy na ci rivalité bi nga xam ne moo am diggante Ngaaka Blindé ak Dip Doundou Guiss mu nekk ñaari rappeur yoo xam ne jamono ji ñoo ngi clashante clash bu taratara Fou Malade la mu xamle nee na clash bi nga xam ne moo am ci diggante ñaari rappeur yi loole nag dafay jëmale kanam rab bi yéen a kaay gii di enquête ñu fekk fa Guy Marius Sagna ak waa nag nee nañu danañu am amal manifestation ngir ñu bàyyi ki nga xam ne mooy Boubacar Seye en tout cas li am ba des lu bare bari te dafa ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum rein avocat yi Boubacar Seye ñoom nag daal nañu déposé li nga xam mooy ab bàyyam négandiku maanaam ab liberté provisoire yéen a di réew mi quotidien xëy génn nañu réew mi yóbbu ñu ca réew mu Algérie nee na am na ñaari ancien premier ministre yu nekkoon ci nguur ak Bouteflika daal nañ leen di tëj lu toll ci fukki at ak juróoma yéen a kaay gi di Stades nee na League ca Angleterre tey jii choc bu mag dina